taboot nu ngal la daam rogginu mboolem xërnu bi bal sa doom yi yëpp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mën taboot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi tafa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo dolli sunna ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di Musa tabax jumaa yi bam tol ne marwata ak ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murid yëpp ngi jooy ngir lu ñu bay mu daldi di gooy ba seene diyaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiif xiif luñ togg bar ni ko fuuf Cheikh Bamba neel ngeen jimindeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tooli booy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 sa dem gi tax na ñépp jooy nawet yi sax dootunu tooy léeg-léeg mu war ba gooy waay Mbàkke jeesul xarnu bi waay Mbàkke jeesul xarnu bi waay Mbàkke jeesul xarnu bi xam nañ ni yaanu daatawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daañu dëggal faasal nga saqi xarnu bi sërmandee nu daa defal lu xel da jul daanu fabal anu tibal daanu leyal reggal nga mbooleem xarnu bi sërmandee nu daa sanal jigéen ñi yaa ñu daamal tey ñëpp yam kenn amatul waaye mbàkke jeesul xarnu bi sëriñ bi jeesul xarnu bi ñoo seeni sag saggiku na ñoo seeni gaay daggiku na ñoo seeni ngëm rékkiku na ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ndax mu tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yu waay sax dinaaw ay mbàkke jeesul xarnu bi ay mbàkke jeesul xarnu bi wuy nu wuy noo ko torox wuy nu wuy noo ko torox yelwaana mu ku la sarax garab bu daanoo xob ya lax bambaay ndaa njaama xernu bi garab gu mag bu ne jirim garab yu ndaw di jirim meññaan ma say mbir ma lem lii rekk dal waa xarnu bi allahu akbar الله أكبر الله أكبر زمان jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa walangaan ci dabi booleem xarnu bi allahu akbaru zamaan jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa walangaan ci dabi booleem xarnu bi libeek shikeeki shaf xaraan lan daa diwoo muy walangaan nuy xelli kopp ya dinaan wa tey korne xarnu bi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah safirullah alazim safirullah alazim tuub nanu ko te muy lu neexuloon boroom njur belewu te xarnu bi xéewal yi daf daa walwal ba woon ci nun di kel-kel yi moo tax ma jug di pel-pel bi geesul xarnu bi xéewal yi def daa ngaan wax seen nga wute nga ak xamu xurëg dund ak seyaan sam ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow masa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu naax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi gàncax gu gi weddatul mag ñi nga yar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal jëmbët li waan ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa yi dikkoon daaw ci xeewal yi fi waan